dama lay wanal nii amel nit bor ni mu mel. Hmm. xam nga yor nga ma fi neuf mois ba koy muñ. waaw ah, damaa dabe xamoon nu mel ci man. dabe na damaa dabe dama lay dama lay jàngal àdduna. waaw léegi man xam naa léegi cinq bi dugal ko ci ci ci weer bee. cinq mille yan frère xool xool Fall. Fall xool même sa temps rek. xoolal bii lay doo demee noonu. xool tool même sa temps. bàyyi sa musuma téye ni sa bàgg. dimbali ma rek yóbbu xaaj bi waaye yow bon booy xoolal bu yóbbu cinq mille bi mukk barke bi am na samay cinq mille ma téye sama njaboot nu dund ndogu ba koor gi tàmbalee ba suñu jonn yàlla tey mu roog chocolat sax lekkum ko oui moom même bu dee mu roog ton wala café ma teg ko sama pot bi sama gorge bi mu dem bor du yaa ko imposé man maa man maa war a imposé bor bi sama cinq mille la man maa ko moom ma dama lay jàngal àdduna rek hmm. te pourtant nag noonu la amee ci yow yërmande kan ngay duul nga naa eh. foo amee si man koy du leer sama nit nga nit goo xam ne maanaam man yow amunu nëbboo fan yëpp ma jékki-jékki woon rek ñu ne dama yor ordonnance dix huit def da ngay fay ordonnance wala looy def hmm, da nga koy jënd dara jot ma ama ama dix huit mille yi xoola numéro bii mooy sama centre da ngay envoyé rek mu ñëw hmm. ah sa xaalis si ordonnance lay dem daal waaw nu déggante sama numéro boo ko def liste noir dimbi dimbali ma ci parce que jamono ji ma toll dama wut jamono yu wut damay wut ñu déggante ñu bàyyi tok di waxtu di wax di wax ak yow manam ngay wax ak sa mau kese mënoo baye lool man ñaar nit la léegi man ak pauvre manam man ak ñak ñoy and ay waxtana sama bop di xol ma mau ma ba léegi ma ngi tracer fa la wara a am <laughs> waaw loolu mënut a ñàkk may waxtu. ba ay béjjaaw ne. waaw loolu gis nga. daa yéex a jug nag dugg. comme que damay sàmm nga may séentu kay mën ngaa gis sama fépp kay loolu moom mën naa ne. man tiisanteewu ma daa teel loolu ah baal ma baal ma. naa <laughs> du lenn lu may fàttaliku sama àdduna rek mu wóor ni ma dugg naa ci projet wala ma yaakaar ngir muy événement wala muy jëflante bu may jëflante nit ba ma jëlee ci ndam ndam moom xaw ma kañ laay gàddu coupe ni coupe maa ko jël ci ndam laa ko jëlee ndax wërsëg mais nag nangu rek dina moom nangul boo amee xolub nangu am ne lu mu metti metti borom suba ba tey cinq heures di liggéey ba léegi julli jee mënoo fexe ba pare ci liggéey bi ku doon yooyu ay dënd ngi lay sant nak di la gërëm amiin loolu moo la war di bu la neexon ni man mag la

lo gis rek waxtan la man xamna ni man 3000 la la wara fay. waw waye maa la leb téeméeri. tegal fii ñu xaar indi sama te 3000. waw mo di xut xaalis bi. do ma ram li ngeen di néeg li ngeen di néeg li 3000 bu ma la dara jox téeméer yi xam so wali ma ngi ma ngi ñak man du kure man. barki rasulullah dem ba Massa Thiaré fii euh, susu yi su ñuy dabay tabaata yi ma dugal téeméer ci bir boy jambaté ko. man du doom doomu raamu kenn man. téeméeri de boo ma ko abalee suba suba boo ñëwee 9h ma jox la ko ndax xale dañuy jàng te ci laa leen jox ñu jàng di. boo wàññi woon wax ba léegi jar nga sa loxo bi nga teg sama jaget bi nag moom mën nga sa ñàkk sa bakkan. xaw ma ne sa xol bi nii la mel. jërëjëf fii doo doo fa amati liggéey yow. jërëjëf alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil mu jugaloo nga xam lépp dëgg léew na ma dong su ma ci toggee dëxin mu dem mën na neex par force parce que xaalis bu leew la ne da ngay dignité noble deux fois. ah tey ngaa laal lii rek xoolal bu ma tudd trente mille bu ma ko jox man yor na xaalis noble la noble la ñun. Eh, dégg nga tey ñeenti junni rek bala ñuy war a mel sa ñaari junni da ngay canaatu nag ba far lakkale de wallaay wax nga dëgg jëlee sa ñaari ñeenti junni man maay xool ba xam samay wërsëg mi ngi ñëwam déet day ñëw di fo incha allah xam <laughs> mhm, ah, junni bala ñuy war incha allah rabbi comme que xam naa kër gi mhm. ma indil la sa ñaari junni waaye yow it ah, dugg ah, foofu téeméer ma dem jëndi fooy balance ak bigi fóoti léegi ma jox la bu soobee yàlla gëré <coughs> yow danga dama dama yaakaar ni danga danga déggul samay kàddu awma awma awma témèr djurum fuk sax yoruma ko ma jox la egg. ñak gi ma ñàkk de rek ko sañ de yow rek ya ko sañ de dem na ba suma ma omo sama nawle jënd omo ma xëbal du xëb mom mu xëbal mu xëb ma fóot mu fóot mu weer mom bis ba lepp wow sama yef sama dara du waw ma ñak ah ah. amee baax na ah, no noo amee baax gën sacc jek jek rek yalla dimbali dara. mbaax ma eh. moo man badu badu badu baadu tamit moo nekk sama wërsëg man est-ce que waruma dem ci mbedd di lay lu mo am ñu journée ben commencé neex ndog ba pare nga <laughs> xam ci lépp biir suuf lépp a ngi ci biir suuf salaamaaleykum waaleykum salaam sama góor gi ah Fall lay def sant yàlla maa ngi jàmm maa ngi bu baax yaa job bi da la jaaro jaaro mooy bi ma ko fiancé maag moom ah, ok moom lu ma doon fóot ñi rek affaire wadd moom laa doon wëral ñi rek neen def baa feeñ na non non garaawul ah, dina feeñ ah. def oh, ordre day dox du or ah d'accord kii la yàlla mën na ci yàlla mën na ko ñun përëm la ñuy tàgg ñun amul di ah. pauvre yi ay përëm la ñuy tàgg alliance <laughs> ñu am rek ci jàmm bu baax sant sant yoo yoo yoo ko yoo ko peel peel ah. peel la soxla seet la soxla eh, peel jàppoon naa gaam ne ñaa ko dégg ah, man man dangaa gaame waaw dangaa gaame ñëwal pent ku la dooma may doolam dër may ma doolam laay ñaa ko dégg nga ree kii bi ak nit ñu ma yaabe bil bil bil bil xool du kuré ak ni ma ñàkkee kaat kil nga may ñaan dërëm kaat kil aw mo deur demal fo xooyi ci biti acha us fa ma gaaw nga way rankal kaasal kin nga ñaan ma jom ah. da nga leen marakis mo gam la kin mbax mbe burat ke ke sa ke ke sa ben ramanda nama na nama dangaw nga naan rek dangaw nga naan dangaw nga naan suma ñëwoon léegi naan danga naan dama mal suma gis nga ñaan ko bu fe bu ma dolli de yow yaa tam violent demal taas mba jën re a gëgël gëgël gëgël gëgël gëgël gëgël gëgël gëgël daanu nga dama sangu seen caala nag caala war caala moom bëgg nga gën yow waaye daanu moom bëgg nga xanaa nag ko dakay na mu nag ba ba ba cëw leena leena leen ak bu daanu jëm naa la woowa penn baay bés bu la yàlla sàkkoo ba nga fekkee sama daanu ñoo ngi koy saaga si gémmiñ boo fekkee sama daanu nga xam lépp dëgg la xam ne góor yàlla dëgg may wàcc. gàddee woo foofu. bàyyi ma dugg ci biir xool kii. njëgu billet da laa amagul ba léegi. billet la. billet billet pour mun a dugg si affaire bi maa ngi dajale de. <laughs> am nga ñaari cinq mille j'espère. ñaari. cinq mille. ba xam dama gàdde junni. waaw. amuma amuma pauvre la amuma. ci ay bor cinq ci ay bor laa tëdd. baal ma dugg ci biir fay jox ñu jox la. Hmm. xoolal boo duggee ci biir bu mu feeñ. bu dugg sax ci thème boobu. bu la waxee ak yooyu noonu kamu fuleel. boo romb dëgg neexul. Ah, baax na dégg nga ça. léegi léegi ci kii ci biir ci biir soo loo am. dama xam fan la pauvreté ak ñi pauvre fan la ñuy fréquenté. loolu la ma yàlla dimbali ñi nga xam dañoo pauvre te tricé dañoo ñàkk te mënuñoo ñaan du dëgg li ma dig ci doomu aadama hmm. li ma ko joxoon tekki na liñ ma dig ci ay téléphone hmm. liñ ma dig ci xaalis liñ ma dig ci ay objet hmm. yéen a ngi may seetaan xam nga ñi ma leen wax bàyyi leen dig dafa dig dig baaxul nit boo mënul neen mënu ma nu ma mais <laughs> man damaa gaaw yaakaar damay tëdd di xalaat naa ma yeew woo la ma dama jàpp no xaaral xam nga yow mii nag kenn du ko kuuxale noonu boo amul amul ñàkk doy na tooñ oh. xësa li ma def keroog yow woo ma téléphone naa ma gardé woo deux mille ma jëndee connexion yow nan ngay lewee pauvre pauvre loo koy lewee ku lay lebal oh, xool ba xam li nga wax yow dëgg la xool doo ma gis yoruma awma dërëm ah ndaxte yaa ma woo ñaari yoon déedéet da damaa teg nga du kuré du kuré ba yaakaar naa ma ah. euh, man la man la man la man la man la sama xel mi toogul rek dara xewut de. waaw man de dama yaakaar ni euh, bi yàlla ne àdduna boo fi ñëwee. Hmm. doo fi dara. Hmm. te booy dellu. Hmm. du yóbbaale dara. man man lay gaaruwaale. sama xel ci liwal lay nekk liwal. liwal man. barke yonent bi man su ma wóoree ba ba ba yenn heure sama xel sa ma maan bi moo naan léwal léwal léwal bu ma yàlla mayoon man dukk rek kase ma woor ba ba deux ñu mel ma benn léwal bu toog mën naa woor deux heures euh, donc est-ce que xam nga ne lu ngay fere si léwal boo ko dajale woon am nga soxna <laughs> est-ce que takkuma léwal loolu man. maag li wala sëy. sa bakkay. ça ci ma def. fi. maa ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah sant yàlla. baarikàlla. am rek. laaj Abdou Kouré man de tey dama ñëwoon pour doon la jox sama Murum koor Abdou Kouré. la xale yi nu mu complot rek. <laughs> ah loolu lu ci am complot. yéen a mise en scène ba rafetal ban mise en scène kii traversé kii ñëwaat. ah pap du ko de dañu ne kat julit da nga wara dem xol sa julit mbok julit mi nga tane nga jox ko murum koor moo tax rek ma xalaat la bala ma dem feneen kay naa ñëw fi def lako jere jef jere jef indi ore yi waaw kay xanaa yow xanaa jaayoo papa du ko de murum koor ku man kessa la de génneelu sama wa kër de ah, sama bop rek laa génne da melni ni rek mo jaayo ya jaayo de waaw mom mo jaay man jaayo ma waaw ah, loolu la kay ah, ñaar téeméer jàmm jërëjëf pauvre la waaye mo miskin de ni ni doon miskin nak dañ leen wara taxaw nak jappale leen ndax ay góor kat lañu dañuy liggéey yii bu leen ci dimbalee du xam lu ñu def. li ma gën a metti sax ci pauvreté mi ngi ah, gën a yokku ndax démb dama am benn remarque bu ndaw bu moo def tiit naa ci werante si sama xel ma ne est-ce li lu ma nekkee dama jënd suukar ak warga di ataaye bi may ataaye ma ataaye ba yegg ci fuural kaa sedd set na wecc ma fuural fuural mu dog man dem naa ba suma pauvreté yóbbu na ma ni suma ma su may attaaya sax léegi furóor gi day dog. mais attaaya bi xanaa suukar dafa niin. dara niinut man samay mbir man même man bu fi mu ne nii bu ma bu ma bu ma ma jékki-jékkoon sax di lekk lekk lekkandoog nit ceeb. nit ñëpp di yëg guu man du ma yëg guu. lewet lay maanaam pauvreté moo la yóbbu foofu maanaam day yóbbu sa langue organe de organe de noonu lu garaaw laa wax parce que li ngay lan ngay xalaatee pour fay say bor. doo nekk à l'aise pour lekk. mën na ñëppam jàmm. mu yow. kii du ñaanku. kiis kenn. aha kay. kiis. nitu fii la. nitu fii la kay. doomu raam dëgg. ak kii dee dëkkule. kiis kenn. aha kay. du ma nitu fii. kiis. daf daf kit kit ku daf kit ku daf ku daf. ku daf kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit jaajëf jaajëf gil gil gil gil gil gil sakki sa gil xala gis gis xol sakki sa xol gis gis gis gis gis sakki sa gil xale yi doon saay saay fakk xum léegi li mooy dem yóbbu ragi gigi sakki gel gisal gën gis bin ragin ragi sakki gin bar na max mar na max ala xa xof xof ma da xol ma da mar na max yow jaatal kenn kii kenn kenn gi gi gi sakin ramara ramara ramara ramara ramara mar na ma mar na ma te xës doomu raam la nit doo nit fakk la bu dul woon weeru ba légui ba légui sax saga na anday fay laale lu kalaaw do noné ya ngi ñew an sa baay mu fa an sa baay mu fa mi ngi ci jàmm bu baax li ngeen def baax na léeg ngeen def jékki-jékki de temps en temps ngeen di ma xol si parce que gédé ni leen juré non la leen juré gomal Comment vous comptez là Comptez. Comptez. 1, 2 et 3. Une bonne. Ah, on jàpp nag. jàpp gi mi di naan. asaare ah, pas jàpp la. gii li ñoo bokkul. yow nag loo tëgg boole ci xor boole ci leneen lu bokkul ak loolu. li ma laal moo tax ma bëggoon a naan moom laal moom laal li moom. Oh. ndox moom. weeru koor ak moom boo laalee moom naan ndox. gis ma ko de. rythme la rythme mooy sport bi gën a gaaw ci ci ci ci danseurs yi. boo weddee loolu laaj ko. Pape Moussa Sonko ñoom Faa Wale Faa Wale li ñuy dund. Sonko kii Sonko. booy boobu noonu tamit nekk Pape Sonko moo ne Solano. waaw Solano euh, Adma ah, euh, keneen ki Pape Pape Ndiaye Coppe day way. Pape Ndiaye Géwél Pape Ndiaye Thiou. Euh, kii nu si keneen ki tamit tamit nekk Poka am Amathou. Amathou keneen ki Amadou Badiane Amadou Badiane. waaw ak yeneen booy yeeg ñoom Ndiap ak. waaw ñoom Fadel ak. waaw bu nu feccee ba pare. mais le booy nan daa xamal léegi booy day du fecc coono ci fecc de. ah bu ñu naan nii. xool waaw léegi xool xool. léegi noonu la nga maam bu buuse comme ni xali naan ni xool comme ni nan da ko. maanaam maanaam maanaam non waaw bu ndeelu kaay tee leen ñu def ko caakin. waaw toogal toogal toogal toogal toogal yow koy jàngal fecc yàlla bu mu jaaree foofu ñàkk ay tànkam. sa soxla naa la. ajaata ma kay maa ngi lay déglu seen leen bi nii laa ko doon tam. yëpp a dee fi mu ne nii yi ma jàll nii yëpp mooy ñëw yëpp fii laa fi li nga doon dund man dañu damaa ñëw rek garab yi di wàcc par benn benn. mais ci yow la. non xam naa bu ma expliqué man yaa góob fi yëpp di dee. waaw xam naa da nga buume nag. dama. aawlu aawlu. waaw déggoo ma man samay mbir moo doxul. maanaam lu mu. mais yow est ce que doo dee benn yoon. man su ma dee woon sax du ma dee moo doon dee dee la sax du ma dee man yàlla da mu fi indi daa fekk daa fekk gars yi gars daa fekk ma ci affaire léegi. boo dugaloo sa boo dugaloo def. man dugal ko ma ma boo jax ma ka man ma sa bopp sànce man. dé maam jax ma sànce pour pour lay bi. waaw léegi ñànku lan moo la fi indi. bu ma man sama projet moo tax a jug man dinaa ko gérer dégg nga. ko mel naa la. loo ma mere. pakk yàlla. loo lu ma def loo ma mere. maa seetlu boobu ba léegi. yaa doo. Hmm. ko ci kër gi sama tante nekk ci kër gisuma la yéeyoo yaboo ci waxoo ci defoo ci dindi woo ci ah sawaay ne di suflil yaa doo bëgg na ñëw mënul ñëw yow nga toog fii ah te daaw ci kool yéene la ko lonko defal seen affaire lu neex ñëpp di ci kontaan jàppoon seen affaire yooyu noonu boo mooy booloo booy doon ti tanu tudd tapil piisi bi li max ta gin tabiri bi daa waaw weeru ko la ne loo fa fàtte nga fàtte ma dara xaa fàtte woo temps yi nga yaa doo sama nit la. voi Gédé dafa dëgër bopp nee naa ko muñalal yaa doo mu ne du ko muñal benn yoon nit nag ñoom ñaar ñoo bokk néeg bu ñuy fanaan comme que Gédé daa mën a toppandoo moom nee na man fii ak man maa ngi nekk sël dina fexe ba sacrifier yaa doo génne ko ci fiyam pour suma ma takkee jabar mu doo tak yaa doo démb mi may woo téléphone démb démb naan dafa bëgg a dellu si man ko xaaral ma waxtaan ak euh, Gédé ba noppi Gédé nag nekkuñ si jàmm. kone ko nekkul ci jàmm mënoo ko mënoo ko expliquer lepp lol la baa ko mu tok rek ya do mom même bu nekké dama koy jël sax man ma tak ko sama bop mom ma tak ko ben la rek parce que maag moom ben la maag gëdë ben la di ma tak ko rek mën nako jël ah ma ma ko depuis son problème dama ne woon dootuma waxata yow sax parce que si jikko yi ñëwaat dama ah man man man duma japp man mëna a yow léegi ma changé waat léegi ñëwaat léegi yow ya sa ben nga mu le mom su ko fase woon da ngay tak wa waa ay nit bu ñuy ànd ñu ni dañuy nduru ñaar tay kenn waaw mu doon dëgg. waaw. Gédé. waaw bu fasee soxna war man war naa ko mën a takk man. télé bi loolu na ne. Mhm. par exemple. Mhm. par exemple. Mhm. su ma ne woon triste na ko tàpp saa xanaa da ko yëg. du ko yëg. abay ah, lool. ndax du ko yëg. parce que ñaa ngeen. waaw ñaar maanaam esprit la ñuy expliqué yow yow yow kenn nga wala ñaar. benn. benn nit waaw amoo kenn koo yëg. déedéet yow ma léegi par exemple. waaw bu ma ne woon coppet saawara bi. allo boole ko ci tund gi. jël lancer rek fres ku ñu ko pris kan moo ko yëg. maa kese ko yëg. yow kese ko yëg. waaw mais am na keneen koo xam dina ko yëg te doo xam muy ndaayaan. déedéet ndaayaan du ko yëg de. Hmm? déedéet ndaayaan du ko ndaayaan seq maa moom daal temps yi de. ah loolu léegi nag yéen ndaayaan yi am problème man ak Gédé jabaaram mën naa ko takk xanaa yëgu ma sàcc wax la loo xam ne bokk na ci bu siiwul si yow la génne. Ah. yaa doon doon sàcc di fanaan sama néeg maa bëri sutura rek maa ko waxul rek. donc yaa ngi déglu waayu kii bu bees ne ko abu ci baloo de. booy bi dëkk Ndal. Ismaïla te Ismaïla dëkk Ndal. ah nu mu tudd sax ah Adu Jiti waa Seck Seck waaw. maa ma naa Diego Diego maa ta jël te ta xaritam ah, du ko kirij. waaw fi Diego la mu waxaatee ñuus dégg nga ma dé eh déglu ma la laa wax xam nga yow lu la fi ma jubóole. dinaa la ko may mais à seule guédé mu nangu ne jigéen dañ koy mu en tout cas tamoon na daa na naa bàyyi dugal naa booy bi daa dem tànk. warewul tànk booy bu mu seesee ba léew fële tànk fële tànk boo seesee ba ci ëllëg sa waaye topp dëkk bi ah. ah bu nekk ci biir néeg. mais dafa tas nii. tas la def moom man lu tax mooy ñoom fi mu am problème bi am nga dem dafa tas ak moom. da ah, ah, may baat maa la wax loolu maa ko ullee hmm. ne ma ko dul de da koo may baat ci loo xam ne erreur lu nekk dugg ci biir gede heure bu ñëwee gede du ay mbiram bu jóg yaa doo jënd na parfum de chambre jënd na lépp loolu du xanaa xamoo boo amee sa bàyyi yenn jàngoor yi du la ko koy ah, nëbb safara xamal tax xamal tax hmm? du dëgg hmm. yaa doo mi mënta wasin nekk ci nàmpal ñooñaa mun a mun a daa gerte daa am problème bu bay loolu mënul nekk gerte dafa ñëwoon di insister ci mère bi noonu déedéet déglu ma dafa woon war woon sëy moom moom mu amee doom dafa waroon patienté léegi gerte di insister pour def pour dem ndaxate gerte daram jugut loolu la loolu la demee de gars yi ñoo laana waaye loolu daal daal keneen lañ koy fi kan la lan daal mais gars yi bu leen lañ koy wax gaa yan yan gaa sa rek waaw jugal jugal demal demal demal xam nga yéen gi moom fi jël si rek ku nekk a ah, ah, ah, kii du moom du moom damaa génn da ngay nga